asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa mbooloo waa INAF waa Yeesal Juboo maa ngi leen di ziar baax man la madame Fall Ndeye Mbour di ingénieur de projet di yëngu ci ministère de la formation professionnelle et de l'emploi temps yi lañ génnee emploi bi dem tafi ji ko feneen mais loolu yëpp c'était notre ministère donc il y a aussi pour développement développement formation accompagner femmes yi encadrer leen ak étude évaluation de projet ci loolu tamit ci loolu je que si contexte Nous, nous, ma nous, pour expliquer comment on peut faire pour mettre sur pied des projets projet de développement euh, projet yooyu pour que man ma mën ci dugal sama loxo parce que man je suis consultante ba pare sama euh, sama cabinet mu tudd international business cooperation la sama cabinet tudd euh, may bind projet bi ci Sénégal bu fait même même en dehors du Sénégal damay bind ay projet expérience boobu ñu capitaliser plus de quinze ans ma ci loolu macha allah donc am naa ci mais su ma la su ma indee sama machine ba de cinq cent euh, cinq cent bases de données de projet te war naa ko de différentes su fekkee da nga ñëw ci agriculture maa ngi su fekkee da nga ñëw ci agriculture maa ngi ci façon projet de développement boo bëgg rek dawal di euh, affaire taxi loo soxla rek ñu ñu xool projet boobu naka lañ ciy waxtaane pour ñu adapté ko si li ngay def ci milieu bi nga nekk parce que projet moom pour nga bind ko c'est comme le médecin ou bien l'infirmier il faut me consulter la naka consulter dina laaj sa tur sa sant fan ngay implanter projet bi euh kan mo la koy financer ak à quel taux la koy financer ak rembour taux de remboursement bi ba kañ la la nga koy fekk parce que yoy mom boko ko xamul mënoo bind ku la wax dina la bindal projet te waxul te xamul yow sa tout sa sant

xam capital il faut mu xam capital bu fekkee ne c'est un projet de cinq millions ma xam ne cinq millions <coughs> bu dee dix millions la ma xam ne dix millions moo lay permettre ma xam si ñaata temps nga ko mën a amortir jar ñaata temps nga ko mën a rembourser si te aussi loolu aussi day dépendre si banque bi nga xam ne moo lay jox xaalis moo xam taux bi bu dee cinq pour cent la wala sept pour cent dama koy xam parce que boo xamee structure bi lay jox xaalis bi rek automatiquement dañuy xam ñoom dañuy teg dañuy xamaale automatiquement ñoom

da ngeen consulté wu seen biir ñu ne soxna kii Diop loolu Kumba Diop soxna Kumba Diop kat moom lii may nuyoo ci nii la tudd lii may mu ngi tudd Kumba Diop dëkk euh, Mbour Mbour temps Mbour Socé ala Mbour dara ba pare joxe sa numéro téléphone wax ci li nga nekk di liggéey mais li nga nekk di liggéey nii am na ñu bëri nekk Mbour di ko def mais yow pour nga gën ci génn il faut nga am ay feem yoo génne yoo xam ne ñoom defuñu ko loolu mooy étude étude étude marché ñu xool ñi fi nekk lan nga mën a changer yow apporter benn touche bu bees pour que loolu nekk il faut ñu xam aussi soxna Coumba Diop capital bi ñaata la bëgg mu nekk il faut ñu xam aussi am na lu ma fàtte ñaata nit ngay dugal ci biir projet bi ñu liggéey parce que mooy mooy tax lu côté ressources humaines ñu xam ñaata ñooy fayeeku ci projet bi ñaata ñooy dund ci projet bi ak ñaata ñooy dund ci projet bi parce que projet aussi day impacté projet bu amul bu impacté wu jarul am indilul dara société parce que moo tax ñu projet bu fekkee ne mënoo ci dugal kenn yow rek la di rouler yow rek yaay rouler xam nga loolu tamit du xaar du liggéey bi faut mu am au moins deux ou trois personnes yoo dugal nga ne ñii lu mu bon bon ñaari personnes yi salaire kii bi moo leen fekk projet bi moo leen fekk bu kii defee nii kii def nañ ki dugal deux ki dugal deux ki dugal trois ki yàggee emploi day day jeex parce que man mi nekk ministère de l' emploi loolu la ñuy bu les structures de base dañu comment dañu dañu jël jël le reste parce que ne peut donner de à tout le monde état bu la dama lay à tout le monde mais les sociétés privées structures créer de la richesse à la base ba pare jël xale yi dugal ñoom tam de grande société c'est comme ça qu'on développe un pays. Parce que c'est à la base vers le sommet. Ça ne peut pas venir du sommet vers la base. je vais vous expliquer que je suis à votre disposition vraiment si vous lu ngeen numéro téléphone je vais donner ça Et pour commencer, la bonne minuit heure minute, je suis à votre disposition Nous mais avant tout l'informaticien doit travailler en étroite collaboration avec moi comment il va faire une base de données

businessman. Hein? man côté businessman mais moi loolu business businessman c'est ah, ça. mais l'homme mais loolu loolu def projet kay des businessman faire l'étude l'étude du milieu l'étude du terrain ben pour les concurrents et tout on pare l'étude financière va faire l'étude financière mais si on defaale pas business businessman, c'est comme ça qu'on fait un tour je pense que je pendant plus d'une décennie je suis dans ce domaine je suis la meilleure. Je ne suis pas la meilleure. Il y a peut-être d'autres qui sont mieux que moi. Mais ça fait juste, je, capitalise quand même une, expérience de plus d'une dizaine d'années sur ça. Je fais que ça. Même en dehors du Sénégal, je me fais des Parce que pour madame, je me fais contacter des gens, des fois, je me dis, que c'est la première fois que quelqu'un dit, je me suis dit, pour me faire des projets. Nous sommes des projets. Moi, euh, je suis à Dakar, les 19 communes d'arrondissement de Dakar.

ñu jox ko seen ministre mu dem déposer te musuma gisuma ci kenn xanaa ñi ma ci xam ñi nga xam ne ils sont autour de moi je me suis jamais déplacé. c'est la première fois ma may liggéeyal nit projet déplacé mais kii parce que sama càmmeñ ji macha allah ni ma leen waxee ni may expliqué parce que c'est c'est une expérience de se déplacer c'est bon d'aller les voir de parler avec eux de vive voix en tout cas s'ils me font confiance man je suis là li ma xam ci projet depuis plus d'une dizaine d'années ma nekk sur le terrain dinaa ko mettre à leur disposition